dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo màggalu Tuuba 2020 gi ak woppi coronavirus ji bëri na ñoo xam ne dañu doon wax ne maanaam nañu ko annulé ngir bañ woppi coronavirus ji bañ a law ci réewum Sénégal ba coow lu juddu woon na fi yéenekaay gii di réew mi ko quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou jël na dogal joxe na ndigal ngir nag ñu amal li nga xam ne mooy màggal gi waaye wax na ñu jël li nga xam ne maanaam mooy mesure barrière yi daal di wàccoo ak li nga xam ne moom la waa kër docteur waxa journal bi nee na comité d'organisation màggalu Tuuba gi samedi ñu génn amal nañu ab réunion ba ñu fa génnee li ñu waaxa mooy sëriñ bi nee na màggal gi mën nañu ko amal waaye képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci màggal gi mbooleem loo xam ne ay mesure barrière la na nga ko jël ngir bañ woppi coronavirus ci laaw journal bi nee na waxuñu rek ci lu soxal wàllum covid bi wax nañ ci ñàkku ndox gi nga xam ne maanaam dañu koy faral di nemmeeku Touba wax nañ ci lu jëm ci wàllum mbënd mi maanaam inondation ak wàllum ñàkku karange gi loole lépp wax nañ ci yéenekaay gii di Vox Populi mu xëy di ñu xamal lan ñu woppi coronavirus ji ak virus bi ma ngi fi waaye teewul li ñu wax mooy ilaa Touba maanaam dañuy màggal yéenekaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa docteur Souleymane Astou Diagne dem économiste la xamle ne ne askanu Sénégal xam nañ ne maanaam bu ñu annulé màggalug Tuuba dina feeñ lool ci li nga xam ne mooy économie réew mi ndax màggalug Tuuba gi li dugal ci économie réew mi bari na genn xeetu bari xam ne maanaam bu ñu ko annulé loole nag caaf mën naa xam yéenekaay gii di Libération nee na en ba des daal maanaam juróom-ñeenti fan ci weeru août jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru août lu daat nañu koy nemmeeku yéen a kaay gii di réew mi quotidien ci xalima ak Assane Samb daat nay wax ni coronavirus su jamono ji mën nañoo wax ne ni mi lawee ci réew mi daat nay jéggi dayo yéen a kaay gii di libération na ko ma yeggale lu toll si ñaari téeméer juróom fukk ak ñett ci ay nit faatu nañ ci journal bi di réew mi quotidien lii na lii nag giraawaali dëggantaan la benn jaaykatu masque la ñu jàpp ndax moom mii jaay masque dañu ko fekk mu yor ay masque yu bari di wax ku bëgg masque te moom tëkkuta masque yéen kaay gii di lii quotidien ñu xëy fekk fa waa coalition jot na ñoom Ousmane Sonko nee nañu Macky saax-saaxe yàq li nga xam ne mooy économie réew mi maanaam daf ko quarantaine quarantaine boo xamante ni bu amut ab àpp la ñu xëy fekk ñoom Thierno Alassane Sall ak Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo ñoom waa conférence ci kaw Macky Sall dal nañ ci kaw Alpha Condé ci lu jëm ci ñetteelu mandat daan nañuy ki nga xam ne mooy Macky Sall maanaam bu bëggee samp ndëndam ngir am ñetteelu mandat ci réew mi Boubacar Camara nee na Macky Sall ci woon nekk atum 2012 di xeex ñetteelu mandat Abdoulaye ji jii mu bëgg a taxaw ne dafay am ñetteelu mandat te loolee askanu Sénégal ñoom seen bopp waruñu ko nangu yéen kaay gii di Les Échos ñu xëy fekk fa ñi nga xam ne ñooy waa PDS France ñoom nag daal nañu yee Abdoulaye Wade nee nañu ko Abdoulaye Wade yeewul góor gi yeewul parti boo xamante ni ci ku jige la nekk dafa war a yëngu dafa war a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne maanaam ñoo fi nekk PDS France ñoom nag daal nañuy wax ne PDS jamono ji ma ngi nooyal bu baax a baax te ñoom nag ñoo ngi sàkku maanaam Karim Wade ñëw ci réew mi réew mi ko di jeex xëy ci suuf li nga xam ne moo am ca diiwaanu meewaan askan wa nga xam ne ñoo fa yeewu woo jamono ji mer nañ ba maara day taal yi ndax ay jafe-jafe moo am seen diggante ak waa ICS maanaam industrie chimique du Sénégal lu toll si ñaar fukki nit ñoo xam ne ñoo yeewoo mbeewaan jamono ji jàpp nañ leen dugal leen ci kaso bi loole nag metti na askan wi nga xam ne ñoo dëkk mbeewaan waaye nag du ñoom rek la metti ndax metti na waa Amnesty International section Sénégal metti na waa rado metti na Forum social sénégalais ak ay droits de l'homme yu bare bare yoo xam ne daat nañu koy ñaawlu di sàkk ñu génne leen ci kaso bi yéen a kaay gi di Sud mu xëy di ñu xam ne liggéeykat yi nekk ci wàllum justice maanaam lu toll si ñaari weer yoo xamante ni daal nañu koy gerew loole nag li nga xam ne moom la jur maanaam mooy indi ay gàllankoor ci administration bi ndax jamono ji bëri na loo xamante ni demul dikkul lu toll si ñetti fan yoo xam ne xàppati waat nañ ko ngir amal ko ay gerew yéene kaay gi du l'observateur dikk ci musiba ma bokkumbalu day waar loo xam ne maanaam moo xew sa Tamba benn xale bu góor boo xam ne dix-neuf ans rek la maanaam fukki ak juróom-ñeent moo bëggoon a violer benn soxna boo xamante ni ay atam na si juróom benn fukki at loolee giraawaali la yéene kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xamal naan ñu Jules Balde Junior mi nga xam ne moo nekkoon ci écurie Falaye Balde te feebaroon feebar bu yàgg-yàgg mujj génn adduna bi mu génnee àdduna ñu bari dañoo joxar bi baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy Ama Balde ndax dañu doon wax ne daf koo seetaan ñu bari yàkk nañ ko musiba ak mbelengaan ci réseaux sociaux yi journal bi xëy di samp ab laaj ne Ama Balde ndax waa Pikine du ñu ko wan ginnaaw yéenekaay gi di Stades xëy nag di ñu xamal naan ñu demi-finale yi ci Ligue des champions daat nañu koy xam waaye kero na xaw naa rey ñi nga xam ne ñooy waa Barcelone juróom-ñetti bala ci ñaar la ko gagné Kalidou Koulibaly jamono jii taxaw na temm ngir signé ak waa Manchester City